safar nag di weer woo xam ne arab yi jamono ji lislaam di wàcc ak la ko jiitu ak ñenn ci ñoom ginnaaw wàccuk lislaam ba jantu tey ñenn ñi dañ koy gaafal di ci wattandiku ay mbir moo tax ñu bëgg a fàttali taxawaayu jullit bi ci mbir yu mel noonu tàmbalee ci fàttali ne weer wi di safar ay xew-xew yu màgg yu rëy da cee xew ci lislaam baatu safar nag wax nañ ne arab yaa ngi ko jëlee ci asfar safra ndax weer la woon woo xam ne bi ñuy tudd weer yi jamonoom day tombe ak nawet jeex na gàncax yi wow na xobu garab yi naatoon yépp a ngi soppeeku mel ni luy mboq ñu ne weer la woo xam ne turwaa ñu bàyyee ko ci sifru gi firi dara lu doonul dara comme dul xijja muy tabaski dañ daan dajee màkk daan xumb lool naka noonu muharram waaye dul xijja ak dul qaada ma ko jiitoog muharram yëpp nekkoon weer yu normal kenn du ca xeex dëkk yi daan xumb rawat na barab yi daan wormaal lu mel ni Kaaba ga bu safar jotee nag mu mel ni weer yu yor maal weer yu ñu doon wattandiku xeex jeex na ñëpp dañuy jóg gàddu seen gànnaay nekk ci xeex yi kër goo dem doo fa fekk kenn na mel ni kër ga kenn nekku fa danañ baatu safar foofu la cosaanu am ñu wax sax ne mi ngi koo ci kuñ masa songu wala ñu daje yow cib àll nga nekk cim tukki ñu jël li nga yoroon duñ la bàyyee dara buñ lay bàyyi daal day fekk sifru maanaam yorotoo dara loo amoon nangu nañ ko wa ala kullin weer la woo xam ne cosaanul gaaf giñ koy gaafal foofu rek la jógee comme weer yu ko jiitu dañ daan toog juróom-ñeent fukki fan yoo xam ne kenn du xeex ñëppay am jàmm te ñu bari ci jamono jooju seen dund seen fàgguwaayu alal moo doon songu ay nit xeex ak ñoom rey leen nangu seen alal bu weeri jàmm yooyu jeexee nag songante yeeg reyante yeeg nanguwante alal yi commencé ñu gis ne kon weer la wu mett ci ñoom ñu gaaflu ko waaye dama dem ba boole ca yeneen ak yeneen ba xew-xew yee yi xew ci dund bi yu baree bari daawuñ ko nangoo def ci weer loolu ay jeexatama ngi des ba tey am ñu ko def muy weer woo xam ne duñ ci fas ab sëy duñ ci céetal duñ ci def nangam ak nangam ak nangam waaye nañu xam ne sallallahu alayhi wa sallam ci weer wi di safar ci la denc sayyidatuna Xadija radiyallahu anha te ab sëy mënt barkeel ba gën a barkeel diggante boobu kon yonent bi jël na ci soxna benn waaye may na ci doomam ki gën a ràññeeku ci ay doomam na Fatima radiyallahu anha ci weer wii la ko may sayyiduna Ali ibn Abi Talib muy sëy bu barkeel moom boo xam ne surafaaw yi askanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga ci xam ak ñi nga dégg jàpp ci la ñu cosaanoo kon dëgg-dëgg yellu cib jullit muy gëm ne weer wi kenn waru cee fas ab sëy wala kenn waru cee céetal ndax bu ñu doon xool mbooleem pas-pasu sëy yi gën a màgg ci lislaam yaakaar naa ne ñaar yooyu ñu tudd bokk na ci ci gën a màgg weer la woo xam ne jullit ñi suñu borom defal na leen ci ay ndam xare bi njëkk am ci lislaam booy jàng taarix ci atum ñaareel ca gàddaay ga muy xaswatul abwa ñenn ñu di ko tuddee xaswatu waddaan ci weer wii la amoon fukki fan ak ñaar ci weeru safar la yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn fan weeri gawar ñuy dem lu mat ñaari téeméeri kilomètre ak juróom fukk bàyyeekoo Madina ñoo xam ne ñëpp ci ay muhaajiroon lañ dem ba Abwa dem ba waddaan doonte dajewuñu ak noonu yeleen taxoon a jóg xeex amul waaye fekk nañ fa aw nit signé ak ñoom jàmm wante ak ñoom signé ak di dimbalante ak ñoom ginnaaw loolu ba ca weeru koor wa la xaswatu badrinil kubra door a taxaw beneen xare bu ràññeeku lool ci lislaam muy fatxu xaybar xaybar dëkk woon bu mag bu soriwul madina mu a war a lool ay yahud dëkkee woon ko mu doon dëkk bu bëri alal waaye yonent bi bi gàddaayee ñëw madina dafa amoon ñaari jafe-jafe benn bi muskila daaqiliya la maanaam jafe-jafe boo xam ne mi ngi ci biiram ay yahud yum dëkkal doonte bëgg naa jàmmoo ak ñoom woo na leen ci jàmmu signé na ak ñoom kayit yu leer waaye yahud yi ku ne xam ne ne ay warkat lañ mosuñoo yéene jàmmu lislaam ak ñooñ lislaam moo tax pexe mu ne def nañ ko ngir lor yonente beeg jullit ñi beneen jafe-jafe ba di jafe-jafe biti mooy noonam yële mu bàyyi woon màkk ak yeneen giir ci ay arab ak ñi dëkkoon ci tund woowu ñu leen wër te noonu leen nga xamee ne dem nañ ba sulxul xudaybiya ca juróom-benneelu at ci gàddaay gi yonent bi sëñe na ak waa màkk ñu wér ngànnaay yi ci la am féexu nag mën a lijjanti madina ak li ko jege yépp ba saafara jafe-jafe bi benn yoon yahud ya fa nekkoon te fetteerlu génne leen dëkk ba waaye dem ci seen dëkk bu mag boobu muy xaybar doon dëkk bi gënoon a am doole ci ñoom biñ gënoon na yaakaar tabax fa ay tata yu mag yoo xam ne jàpp nañ ne bu ñu fa duggee kenn du leen mënal dara sallallahu alayhi wa sallam waaj booy jàng taarix da ngay fekk ne ànd naag lu mat junneeg juróom benn téeméer ci ay saxaabaam ñu yor ngànnaay dem xaybar goo xam ne ña fa nekkoon te yor ngànnaay mën a xeex mat nañ fukki junni waaye amoon ay tata tàmbalee ca xisnu naaim jullit ñi jéem nañ ay fan mbir ma jafe bés yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne suba danaa jox drapeau bi ku bëgg yàlla ak yonent bi ku yàlla ak yonent bi bëgg ci moom la yàlla di ubbee ba mu xëyee sahaaba yépp teel a xëy ñëw nuyu ko toog ku ne bëgg mu jox la drapeau bi mu laaj sayidna ali ibn abi talib radiallahu anhu ñu ne ko daa wànnentu ba ay bëtam xaw la mën a gis mu ne na ñëw ba mu ñëwee ci la ñaan yàlla saafara ay bëtam ci saasa mu jox ko drapeau ba xamal ko ne xeexal ak ñoom ci woo leen ci kalimatu tawxid xamal ko ne yàlla jubalee ci yow kenn moo gën koom-koom ak alali àdduna yépp waaye ca la waxoon wa abdu siiw ja ne allahu akbar allahu akbar xaribat xaybar xaybar ràpp na bés ni ki tey bi xeex bi tàmbalee benn jàmbaar ci yahud ya moo jóg ne jullit ñi ku ñeme na ñëw léewtoo ak moom muy murxab sayidna aliyu léewtoo ak moom rey ko ca nam gën a mettee xeex ba tàmbali ñu ubbi tata jooju jàll ci beneen tata xeex ak ñoom ubbi ko ndax yahudi amoon na ca xeebar tata yu limu bokk na ca naaxim bokk ca asabu ibnu muas bokk ca tata ju ñuy tuddee bani abil xuqayq naka noonu tata ju tudd wateex ak solaalim ak xamuus tata yu bari yenn yi alal ju bare fa nekk yenn yi ay ngànnaay waaye lu ci ne dëgëroon na dëgër gu tol ni yaakaaru ne benn noon mën na leen faa fekk ànd ak jullit ñi ci ndimbalul yàlla ubbi nañ mboolem tata yooyu màng nañ mboolem alal ya nekkoon xaybar génne nañ yahud yi ci dëkk yooyu ba jafe-jafe bi jullit yi doon jànkuwanteel mu nekk ci seen biir wala mu jege leen wër leen loolu moom féete na boor saafarawu na te loolu yëpp borom baa ngi ko ci weer wii di weeru xaybar kon du jaadu mukk ñuy wax ne weer maanaam weer weer wi ñuy wax weeru safar du jaadu mukk ñu di ko gaafal gannaaw boo xamee ne borom bi defal na ci lislaam ndam yooyu xare ba njëkkoon muy abwa jullit ñi perte wuñ ci kenn waaye xare bii nga xam ne mooy xaybar jullit ñi bi ñu jeexee fukk ak juróom-benn ñoo ci shahid yahud ya la ca shahid mat na juróom-ñeent fukk ak lu tegal ci wax waxi muarriquun yi te fa xare ba jeexee yëpp mooy jullit ñi am nañ ndam ci seen kaw kon weer la ci weeri yàlla yi jullit bi dafa bokk ci ponki gëm. sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu jàngale ko mboolem ñu jàngale tawxiid jàngale ko al imaanu bil qadaa'i wal qadar jëlee ko ci alquraanul karim jëlee ko ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax gëm ne weer wi dafa gaaf ba ku ca def nangam nangam dalay dal loolu dëgg-dëgg nit ñi war nañ koo weesu war nañoo raxas seen bopp yi ba setal ko ci xeeti pas-pas yooyu te xam ne li wér te wér rek mooy li alquraan jàngale amut musiba muy wàcc ci kaw jullit lu dul ci ndigalul yàlla coobare yàlla jamono ju yàlla bëggee wàccee ci yow musiba bu àdduna ak li ci biiram daje woon bëgg laa fegal musiba moomu lott nañ ca waaye bu yàlla namul ci yow musiba àdduna ak li ci biiram mënuñ la koo teg kon faw ñu nangu te gëm dogalub yàlla dañu ko alxuraan jàngalee maa asaaba min musibatin illa bi idnillah wa man yumin billahi yahdi qalbah wallahu bi kulli shay'in alim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala akramil mursalin sayidina wa mawlaana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi alhudaati tayibiina altaahiriin wa ala man tabiahum bi imaanin wa islaamin wa ixsaanin ila yawmi ddiin mbokki jullit yi ñu maase ci sant borom bi subhaanahu wa taala ci xéewal bu rëy gi mu ñu xéewal muy xéewalu lislaam lislaam di leer koo xam ne ci la borom bi leera la lay jullit bi ak dundam fii jaaduna teg ko ci yoon wu jub wu muy dox ak dundam ba mu jeex jàppaloo ko ci buum bu dëgër muy al urwatul wusqa muy al xablul matiin buum goo xam ne bés bu ko borom bi xëcc rek mooy yóbbu way texe yëpp dëkkal leen ca këru texe bu mag muy aljanna yàlla nañ ci yàlla boole xéewal la goo xam ne bu ñu doon jeexal suñu dund yëpp di ci sant mënuñoo jox dëgg-dëgg cant gi lim laaj kon jullit bi war a xéewloo tàmbalee ca setal pas-pasam ci lépp loo xam ne xëy na aada la waaye aada ju juunoog pas-pasu lislaam la aada ju dàquwanteeg njàngaleem lislaam la jullit bi war gëm yàlla gëm gu mat ndax li feek ak gëm yàlla ma ngi manqué lam koy mottalee mooy gëm yeneen yu gëmuwul te loolu yépp fitna la coono la ay jafe-jafe rek la koy yokk waaye bu ko jariñ dara kii texe dëgg-dëgg kii mucc ki raw ki am jàmm àdduna ak alaaxira mooy kii ak gëm yàlla mat bokk na ci gëm yàlla nag ñu nangu ay dogalam gëm dogalam gëm kàttanu yàlla ak coobareem ak sañ-sañam ak àtt yi nga xam ne moom lay dawal ci ay jaamam te bañ a jël mbir yi di ko wéer ay bés bañ a jël mbir yi di ko wéer ay jamono rawatina nag bés wala jamono joo xam ne boo jàngee sa taarixu diine jàng jaar-jaari sab yonantu da ngay yëg ne yàlla defal na ko ci ay tawfiix yu rëy mbokk yi weer wii di weeru safar yaakaar naa ne ku ne ci àdduna waroon na koo gaafal ba mu des jullit bu dëkk senegal ndax jàmbaaru lislaam yi Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu xeex bu mag bi mu xeex ak noonu yàlla yi ngir taxawal diine yàlla ji ngir yeesal lislaam mi ngi ko tàmbalee ci weer wi di weeru safar na mu ko waxee xarajtu yowma sabti saamina achar li xidmatil muxtaari fii chahri safar loolu xewoon ca atum junni ak ñett téeméer ak ko waykatam ba sëriñ Moussa ko waxee ba mooy junnee ki ñetti téeméer ak fukki xat ak yett lim bilee wóor su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeete ndax ñi nelaw seen xol yi dellu seeti kon dëgg-dëgg doyoon nañu rek ñu xam ne ci la weer wii ci la sëriñ bi songoo ak tubaab ak fi seen kàttan tolloon ak seenug caay-caay ak seenug doole ak bañ giñ bañoon lislaam waaye juróom-ñaari at ak ay weer yàlla may ko ndam ci seen kaw lam doon woote jaami yàlla yi wuy si nañ ko lam doon samp samp na màgg na dëgër na yegg na ci yegg waaye boo xam ne dara mënatu ko fee jëlee loolu dëgg-dëgg jaloore la ndam la sant la goo xam ne sëriñ bi ci boppam joxe na ndigal mbooleem ay taalibeem ak soppeem ñu sant le ko yàlla ci ndam lu ko yàlla defal ci bés bi bés bi nekk ci weer wi kon waruñoo wëlbatiku nun di gëm mukk ne weer wi weeru gaaf la wala weeru nàngam ak nàngam la loolu lu mat a wattandiku la sëriñ Tuuba radiyallahu anhu kenn la ci la yonent bi jàngale ci xadis bu wér ca sunanu abi yonent bi nee na yàlla ci am bopp téeméeri at yu ne dana yebal ku beesal diineem ji ku ne xam na ne bi yonent bi wuy jee boroomam ay xulafaawam arrachidun wuy ji seen borom lislaam jaar na ci ay jafe-jafe yu jéggi dayoo jullit ñi dugg nañ ci ay mbir yu lëndëm waaye ba ca bopp téeméeri at ba rek sayidna omar ibn abdul aziz ci diggante bu gàtt mu delloowaat mbir yépp ci yoon wa ko yonent bi xulafaaw ya bàyyi woon noonu la jamono continué téeméeri at bu nekk yàlla feeñal jàmbaar joo xam ne taxaw na taxawaay yonent yàlla muhammad ci xeet bi delloo na jullit nii ci yoon wi leen lislaam la dugaloon ba sëriñ Tuubaa wax anhu ni mu feeñee muy sëriñ boo xam ne képp ku yàlla taw tawfiixal mu doon sa sëriñ am nga sëriñ bu màgg sëriñ bu mat sëriñ ci lislaam sëriñ boo xam ne war ngaa góor góorlu ci jéem a xam mooy kan waaye war ngaa góor góorgóorlu ci jéem a roy ay jikkoom roy ay melokaanam xam dayoob gëm yàllam ak fa mu ca yeggoon bu la kenn man ci gëm yàlla ragal yàlla fa mu ca yeggoon bu la kenn ci ak ragal yàlla na mu daan dundalee ay waxtoom na mu daan wattandikoo di wattandikuloo lépp loo xam ne neen la lépp lu wuute njàngalem lislaam la yow taalibeem nga war a góorgóorlu ba kenn du xalaata yab sëriñ bi di ko jaare ci yow ndax dëgg dëggi taalibe dëgg-dëgg taalibe mooy taalibe boo xam ne ab sëriñam da koy ndamoo ab sëriñam day am cawarte ak bu ñu ne diw mii taalibe sëriñ diw la waaye taalibe boo xam ne yow bu la kenn waxulit xam nga ne gàcce nga ci sab sëriñ taalibe boo xam ne bés booy ñaaw ci mbir bés booy daw ci xare wala nga nar caa ñaaw keroog ngay tudd sa sëriñ loolu dëgg-dëgg taalibe bu baax warta mel noonu sëriñ baa ngi waxtaane léegi fii réew mi toll ci mbiri politique am ay taalibe yoo xam ne bés bu ñu bëggee def njombe bëgg a wor askan wi bëgg tooñ seen bopp ci kanam taarix amuñu lu ñuy xalaat lu nañu làqoo sëriñ bi nañu jëf wala nañu wax loo xam ne nit ñi dañ ciy déggee ne lii ñuy def te muy lu ñaaw muy ay wor ci sëriñ bi lañ ko jëlee loolu mbokk yi lu ñaaw la ab taalibe war naa wat ndiku loolu te góor-góor ci luy sagal ak luy siggal sëriñam mbokk yi ñuy dénkaat suñu bopp ragal borom bi subhanahu wa taala laabal sunu xol ci mboolem pas-pas yu yàqu yeeg aada yi dàquwanteeg diine waaye di fàttali ne bokk na ci liy dimbale ci jullit bi di suuxat ak ngëm yàllaam di ko dimbale ci ak ragal yàlla di ko dimbale ci wéral ak selal pas-pasam di ko jegeel boroomam bëri lu muy tudd boroom yonent bi yow jullit saw làmmiñ bu mu dañ di lu tooy ci tudd yàlla alquran nee na ñuy tudd yàlla lu mu gën a baree gën a baax ci mbooleem xaal yi ci mbooleem jamono yeeg waxtu yi kon tudd yàlla jaamu yàlla bu jàppandi la waaye jaamu yàlla bu màgg la bu rëy la bu gaaw la ci defar jullit bi bokk ci tudd yàlla la ci gën a màgg nag baril salaatu ala nabi rawat na ci bés bu mel ni bésu àjjuma ak ci mbooleem jamono yu màgg yi allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammad warham sayidina muhammadan wa ala sayidina muhammad wa barik ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammad kama sallayta wa rahimta wa barakta ala sayidina ibrahima wa ala ali sayidina ibrahima fi lalamin innaka hamidun majid salaatan tunajjina biha min jamici alahwali wal afat salaatan taqdi lana biha jamic alxaajat salaatan tutahiruna biha min jamici sayyiat salaatan tarfacuna biha indaka acla darajat salaatan tuballighuna biha aqsa alghayati min jamii alxayrati fi lxayaati wa ba'da almamaat aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iri almuslimin